waaw jël nañu disposition yëpp ngir bac bi euh, fi ñu toll nii li ñu waroon def ci jamono bii ñu toll def nañu ko te itam li nga xam ne moom lañu ñu war a def ci jamono yii di ñëw itam ñu ngi ci. série yi moom fukk ak juróom-ñett lañu euh, ndongo yi ñu ngi nekk euh, téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni yu teg téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn donc cent cinquante cinq mille cent vingt six mooy nombre ndongo yi. ci biir ñooñu nag ñi ci ëpp ci domaine littérature la ñu nekk mooy boo jëlee téeméer bu nekk euh, juróom-ñett fukk ak ñaar yi ci domaine littéraire la ñu nekk domaine science et technique bi ñu ngi nekk euh, à peu fukk ak juróom-benn ci téeméer bu nekk euh, fukk ak juróom-benn yu teg tuuti domaine tertiaire bi mooy ñuy def économie ak gestion ñooñu ñu ngi nekk ci ñaar yu manqué tuuti ci téeméer boo jël. coronavirus bi bi mu ñëwee dañoo dakkaloon lépp njàng meeg lépp lañ dakkaloon. Euh, waaye bi ñu ko dakkalee aussi am na ay dispositions yu ñu jëloon muy d'abord dispositions yi ñu jëloon pour ndongo yi toog seen kër di mën a jàng mais ba ñu demee ba ndongo yi war a dellu si waat itam euh, dañu jël ay dispositions yoo xam ne yi ci kaw protocole boo xam ne waa sante ñoom ñoo ko joxe ci la ñu ko wér léegi nag disposition yooyu dafa nekk disposition yoo xam ne moo ñu war a gunge ci njàng meek njàngale bi moom mooy ñu war a gunge ba ba ñuy def examen yi ci lépp lu ñuy def disposition yooyu ñoo ñu ñoo ñuy gunge. chaque année bon euh, il faut nuancer parce que euh, defe naa ne daaw amul daaw jéeg tam amul euh, yeneen année itam tam euh, mën nañu xalaat mais li ma bëgg a xamle mooy chaque année li ma leen di wax fuite mooy li nga xam ne moom lañ nar a natte ndongo yi mu dugg ci ay loxo yoo xam ne yi waru ci woon a yegg. te fekk na examen bi ñëwagul wala du jamono boobu nga fa a yegg loolu mën nañ ko tuddee fuite mais loolu euh, amagul en tout cas euh, ñaari at yi dégguleen ko fi euh, maintenant xaw ma yéen lan ngeen tuddee fuite mais loolu moom ñun daal li ñu mën a xam mooy suñu sujet bu ñu ko defaree dinañu ko sàmm ba jamono ba mu bare génn mu soog génn léegi nag ni ma leen ko waxee woon daaw dafa am ay nit ñoo xam ne ñi ñoom seen liggéey mooy dañuy dem di jaay ndongo yi ay sujet ay lu ñuy tuddee ay sujet ñoom ñooy dem jaay leen ko ndongo yi jox leen xaalis ñoom ñu jox leen mbir yi léegi nag bu ñu demee ba examen bi jub jub si ñu ñëw gis leen yéen journaliste yi ne leen sujet bii war a génn mathématique mu ngi nii ko defee yéen ngeen ne sujet mathématique baa ngi nii ñu mbamb ko bu ca suba saa ñu def examen bi loolu du génn ñu ne voilà liñ ko wax ci presque bi moo tax génn mais loolu moo waroon génn parce que yow mi ñu ko jaayoon bu ñu deful dara bu examen bi weesoo da ngay dem ne leen da nga nax mais bu ñu defee noonu ñu mbamb ko ñu kii ñu ne waaw loolu la loolu la woon mais dañ ko retiré donc yooyu day am mais ñun daal lu ñu mën a xam mooy ñu ngi góor góorgóorlu suñu kéemtalaayu kàttan ba li nga xam ne ci la ñuy liggéey euh, mu ñoŋ ba bis bi mu war a génn mu soog cee génn.